كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما تولتها يا سماء إنما مثل زواتك للناس كما مثل نجوم الماء أنت مزماء كل فضل فما تس در إلى أنك لدواء لك ذات العلوم من عالم الغيب ومن آل آدم الأسماء لم تسل لم تسل في دمائر الكون تختار لك الأمخات والأباء فترة من الرسل إلى بصرت قومها بك الأنبياء تتبها بك الأسور وتسمع بك ألياء بعدها ألياء سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله والحمد لله لا إله إلا الله kon asalaamaaleykum bu ngeen déggee lii ngeen xam lu rëy xewatina xew-xew bi mooy waliyu yàlla bi nga xam ne moo dëkkoon te maliku nangoogoom amoon benn bés bu muy taxawal at bu jot di ko jaglee ñi nga xam ne ñoo nekk barzak bés boobu moo jege si a ah muy bésu muharram asura nga xam ne lendemain tam tamxarit la koy def bés boobu nag moo jub si ci ndigalu xalif bi ak njabootam ñi woo adduna bi yëpp senegal ak li ko wër fu waay nekk rek boo déggee yëgle bi di nga xam ne bés bi doon xew moo xewati euh, su ko defee fu waay nekk rek ñu lay woo ci bés bi bés bi nag xam nañ bésu ñaan la ak ziar ñu ko jagleel ñi nga xam ne ñoo génn àdduna te ñoom it yàlla dogal na ni fi ñi fi nekk di ko xaare ñoom noonu la ñuy xaare bés bi kon su ko defee ku ko dégg rek nga xam ne ñu ngi la ciy woo mboolem ku nekk senegal ak bitim réew ni ñëpp doon ñëwee ñu ngi owaat ñëpp ci bésu wali bu mag boobu muy Cheikh Moustapha Thiandoum ci ndigalu xalif bi a Cheikh Moussa Thiandoum feggoog mbooloo kër gi yëpp taalibe yi dëkkandoo yi tund bi yëpp ñu leen di woo àndandoo ci bés bi muy bésu ñaan su ko defee ñu ngi woo ñëpp ku dégg bés bi rek ñu ngi lay woo ci bés bi wasalaamaaleykum wa rahmatullah bokki julit yi ñu ngi leen di nuyu e, ku ci nekk sa tur ak sa sant comme ni ko Cheikh dawda Sène waxee mbir mi noonu lay demee e, ci ndigalu xalif général xaadiriya alaaji maam bu Sidi Maxtaar Kunta e, ak njobootu ahlu Njaasaan yëpp njobootu Abdourahman Kunta njobootu Sidi Lamine Kunta njobootu alaad alaaji Mohamed Kunta njobootu Sidi Yaxya Kunta njobootu Baay bu Kunta ñëpp ñu ngi leen di woo ci bés bii nga xamante ne mooy bésu Moustapha candum ndax Moustapha Thiandoum kat ñëpp xamoon nañ ko digganteem ak ahlu kuntiyu su ko defee ci ndigalu xalifa bii nga xamante ne moom la fi yàlla teg tey muy al Cheikh muusa candum mu fegoog jarbaatam bi nga xamante ne Euh, mooy setu góor gi ñu koy naan xafiidu jadduna Cheikh Moustapha Thiandoum muy alaaji Cheikh Moussa Thiandoum Moussa Sène euh, ak rakkam bi nga xamante ne rakku xalifa bi di Pape Youssoufa Thiandoum ak ki nga xamante ne moo feggoo ak ñoom di Cheikh Youssoufa Tine nekk taalibe ci kër gi nekk njaboot ci kër gi nekkoon lépp ci góor gi euh, ak imam bi nga xamante ne mooy imam raati bu dëkk bi muy Mouhamad Lamine Ndiaye mu fegoog ñi nga xamante ne mooy ñoom Mouhamadou Jonn ak ñoom imam Pape Gueye ak ñoom imaam Moustapha seen ak ñoom imaam aadama seen ak ñoom imaam Souleymane seen ak imaam Moustapha Thiandoum al ibnu Serif Thiandoum imaam Abdoulahi Thiandoum ibnu Cheikh Arona Thiandoum ak ñi nga xamante ne ñoom Boubacar Sène imaam al oustaz Abdoulahi Ndiaye ñëpp ñoom ñu ngi teew ci bés bi waaye nag bu ñu woowee ñooñu ba pare ci bés bi ñu ngi woo ñi nga xamante ne ñooy a imma yi nga xam ne ñooy nekk ci taqatu Malicounda yëpp ci goxu Malicounda ku ci mel ne El Hadj Cheikh Moussa Diouf ak imam Mori ñoom El Hadj Cheikh Oustaz Makhtar Tine ñoom Ousmane Faye ak imam Mbaye Tine Taaxum euh, famille Doucouré Doucouré yi nekk Malikounda Bambara ak imam bi nga xamante ne moom mooy du Doucouré ñu ngi woo ñëpp taalibe fu ñu nekk ci Sénégal ñu ngi leen di woo ci bés bi muy waa Luuli muy waa Sanjara muy waa Malikounda Saas Malikounda Nguuxuj Taaxum Malikounda Kookaay bàyyiwuñu kenn ñu ngi woo ñëpp ci bés bi nga xamante ne mooy sunu bés ndaxte góor gi waa na Ngëriñ bàyyiwuñ kenn imaam Ousseynou Ndour woo nañ ñëpp ci bés bi léegi su ko defee ñuy woowaale ñi nga xamante ne ñoom ñooy autorité yi alhamdulilahi rabbil alamin wa salaatu wa salaam ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala mbokk jullit yi ñu ngi nuyu mboolem jullit ci ndigalaw alxalifa Moussa Thiandoum ci ndigalu jarbaatam di a Cheikh seen Sène ak i rakkam Pape Thiandoum ak Jibril Thiandoum ci lañuy ñuy waxe suñuy kàddu yi nga xam ni mooy xew-xew bi xew di xew xew kër Moustapha Thiandoum ñu ciy woo mbooleem jullit bokk na kiñ ciy njëkk a woo mu ci ñu ngi ciy woo préfet monsieur le préfet ñu ngi koy woo ci bés bi ñu ngi ciy woo kii nga xam ne mooy Maguette seen maire de Malicounda waaye ñu ngi woo Serigne a Diop di ministre conseiller ñu ngi ciy woo monsieur Loum di coordonnateur PASTEF ñu ngi ciy woo Pape Diouf di député maire Malicounda euh, campement Ngekoox ñu ngi ciy woo Modou Modou Mbengue maire de Ngapparu ñu ngi ciy woo Ousmane Gueye député maire Saly ñu ngi ciy woo monsieur Omar Youm di maire de Thiadiaye ñu ngi ci woo Cheikh Issa Sall maire de Mbour ñu ngi ciy woo monsieur Amar Sy député député ñu ngi ciy woo suñu mbokk Demba Faye di responsable politique ñu ngi ciy woo Pape Maysa Faye ñu ngi ciy woo Pape Maysa Faye adjoint maire Malicounda ñu ngi ci woo Cheikh Badiane di adjoint maire Sindia ñu ngi ci woo Abdoulahi Lo di responsable politique ci Mbour ñu ngi ci woo Kumba Gise di responsable politique ci Mbour ñu ngi ci woo Moussa Jogoy di responsable politique ca Mbour ñu ngi ciy woo kii nga xam ne mooy Bukar Satsi ca Somone waaye bés bi ñu ngi ci woo mboolem jullit ña nga xam ne ñoo dëkk ci biir dëkk bi suñu dëkkandoo ci biir dëkk bi ñu ngi leen di woo ak li wër dëkk bi ñu ngi ci woo waa Malikunda Nguuxuj ñu ngi ci woo Malikunda Nguuxuj yëpp waaye ñu ngi ci woo mali waa Malikunda Saas ñu ngi ci woo Malicounda Saas rawatina ñii nga xam ne mooy waa kër Baye Songo Dieng ak ñi ko wër lépp ñu ngi ci woo yëpp ku ñu tudd ku ñu tuddul ñu ngi ci woo waa Malicounda Bambara ñu ngi ci woo Malicounda Bambara ñu ngi ci woo mbokk luuli yëpp ñu ngi leen di woo mu li mbaa fay luuli benteñe luuli ngaak ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo waaye ñu ngi ci lu ngi leen di woo ci turu a Cheikh baay Hamad njaay ak njabootam yëpp ñu ngi leen ciy woo ñu ngi woo suñu mbokk Maliku Nangari ñu ngi leen di woo ci bés bi ñëpp njaayeen saareen sekkeen ñëpp fàttewuñu kenn saareen fàttewuñu kenn ñu ngi ciy woo ñëpp pour ci ci bés bi nga xam ne mooy seen bésu maam ñu ngi ciy woo ñëpp ña nga xam ne ñu ngi ciy woo waa Kër Baay Iliman Saaxo ñu bés bi seen bés la seen bés la seen bésu maam la ñu ngi ci ñu ngi ciy woo ñëpp daal ña nga xam ne dégg nañ woote gi ñu ngi ciy woo euh, Baye euh, famille Baye Madiagne Diagne ca Gandigal ñu ngi leen ci woo ñu ngi woo waa Sinthiane ñëpp ba Sinthiane ba Ngariñ ba Njorox ñëpp ñu ngi leen di woo képp koo xam ne waxuñ la it xamal ne euh, yëgal nañ la ci bés bi nga xam ne mooy bésu baay Moustapha Thiandoum di baay Moustapha Thiandoum nekkoon a Cheikh Moustapha Thiandoum nekkoon Moustapha Thiandoum àddina yëpp képp koo xam ne dégg nga woote gi xamal ne woote nañ la woo nañ la moo xam ñu tudd la moo xam ñu bañ laa tudd woo nañ la taaxum woo nañ mbokk taaxum yëpp yëpp woo nañ leen ñu ngi leen di woo ci bés bi incha allahu rabbi ñu ñaan yàlla yàlla may ñu ab fekke bés bi nag ni muy demee bu ñu xëyee 10 heures ñu wàccee kaamil jàng alquran ñaanal ña nga xam ne ñoo génne àddina comme ni ko góor gi daan defee bu ñu jullee tisbaar dinañu tàmbalee conférence bi bu conférence bi jeexee dana ñu tàmbale lii nga xam ne mooy euh, euh, mooy cérémonie officielle bi bu ñu paree guddi gi gars yi dinañ nekk di tàgg yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di def ay ñaan ba fajar ga ñu def mbokk jullit yëpp def ñaan ñu ñaalanante ba déwén incha allahu rabbi wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullah auzu jullit yi leen di nuyu di leen gërëm di woo ci sama bésu maam bii amuñu nag lu jub suñu bésu maam naan demee tamxarit tamxarit bu set la koy def at bu jot sama da ko doon def ñu juddu fekk ko fi ñu topp yoon bi ba léegi wàcc ñu ko benn yoon ñu topp nag ndigalu sam papa Moussa moo ñëw jox ndigal tey ji ñu taxaw fii di wax képp ku ne képp kuy taalibe di dëkkandoo fii ba muy bitim muy dëkk bi ak ginnaaw dëkk bi ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen woo ci bés bii bés bi nag mooy tamxarit bu set ci la def ñaan bi di ñaanal ñi génn àddina ñëpp ñu ngi leen di ñaanal bàyyiwuñu kenn muy taalibe yu mag yi di taalibe yu ndaw yi fu taalibe nekk fu nit mën a nekk ñun ñu ngi leen di woo ci bés bi muy tamxarit bu set muy góor di jigéen di mag di ndaw bàyyiwuñu kenn ñëpp ñu ngi leen di woo ci bés bii amuñu nag lu dul bés bii bés bi lañu ñu am muy suñu bésu maam ñu ngi ciy woo mbooleem jullit ñu ngi leen di woo ci bés bii muy tamxarit bés set ñu ngi ciy woo ñëpp bëccëg bi nag dañ koy wàcce kaami def ay ñaan ñaan bi nag ñu génn àddina ñoom lañ ko jagleel ñu leen di ñaan nag ñaan bi yal na yàlla àgg yal na ñaan bi àgg si ñoom ci barki Seydina Mohamed ñu ngi ñaan ñëpp nag kuy jullit ñun ñu leen di ñaanal ngeen ñëw si bés bi wasalaamaaleykum wa rahmatullah. ñaari question jigéen xam na lay ñi ñu lekk sama mbokku jigéen ñi. sama mbokku jigéen ñi. ñoom ñëpp laay wax. Mhm. bàyyiwuma kenn fii ku fi ñëw di lekk di nga naan. Mhm. dinga lekk di nga naan lépp nee na fi gàññe te ñëpp wax dëgg si yàlla ñépp ñi fi nekk ñëpp mën nañu gan dinañ toppatoo gan xam nañu wàlleeru gan dinañ leen dinañ leen defal ba mu baax bu soobee yàlla sama mbokku jigéen ñi bu boobaa bu leen kenn jiitu foofu bu leen kenn jiitu foofu heure biñ ñu wax heure boobu bu ñu ko posé balaa góor ñu ñëw ñaan nañu yàlla mu fekk ñu fa bu soobee yàlla loolu la ñuy ñaan yàlla waaw. voilà. ina kon deke normal rek de ko dëkka ɓe o faaw رضيت بالله بصيرا فأحسن بشكر الحميد جميلا وأشهد أن الله لا إله إلا هو حضر العقول تكمل وأن أحمد النحصى غيالا جميلا وأحمد الجود وقد غلق لنا من كل خير ويد أكثر فينا الحلم والعلم والولاء فيتعلم إيجام كنزا ورفعة من الله فادعوا بأسمائه الأولى فقل بانكسار بعد صغر وقربة فاسألك اللهم النصر المعجزات بحق يا رحمن برحمتك أحاطت حكم يا رحمن الجميع يا مالك القدوس قد الشر تغزل للوجود يا أسلام من الضرر ويا مؤمن حب أمان عن الخطر وغفرا جميلا يا مهيمن مثل أولي أزي أنك أفضل دعاء من بإسك يا جبر من كل معقلة ودها جملة الأهد أيام تقدر يقالق وقلت يا من ضر ما أجر ويبارنا ما أقل فيد نعمة أفضلت علينا يا مغنى الأولى رجوتك يا غفار فاقبل توبتي لقهرك يا قهرتك نقل بحق وهب علما وحكمة وفتي أفضل نبير بشرك قال أخبر قلبكم رب العالمين الغافل في القلب كل ما فيها الرافع سألتك العز يا معز لأهل مظل ذا ذل ظالم من خلاف فالمخ كاف يا ظالم فكن إذا بشيرا بها لي مفلحا متقبلا فيحكم رجلة عند خلقه خبير بما يخفى وما هو المجتلى فالمقفز يا هلم أمدة وأنت أذن بجودك قد ألا القفور والشكر على كل مسند الصبور على أحباب والمخلاف وقد ألا المقام حبيب كبير كسر قيود من خفيف فلا شيء يفوت وإنما مقيت نقيب الخلق أخضر أسفل فحكمك هزية في التولي والفجر كل قلوبك إلى كلمة حق مربوط دعوتك يا مولى مجيبا لمن داه قادما أتى يا في الجود كلمة إلهة تفحكم وفيت فؤادك إن يعود التنسل مجيبا فأنت مجد الله والإله ويا بائس إلى سنك رجيت من صاهد ألا أطيع طيب من الظاهر وحقق لحق الموارد من غلط يا الوكيل فقدهم وجوه إذا كان قيمة ما تبين حمة الضوء والهول وقوة أخذها وما تكرم ولا حمدا وايدا أمو بأذلات ورحمة إلا المبدي فقد أنت والموارد ما في الكون إن بل قل سألتك يا أمه حياة هنيئة أنك يا مميت أخضاء للمؤجر يا حي أيما تقدم بفكرك القديم فكن قيام الذرة ومؤثرة ويا واجد الأنوار أوجد مثيرك يا ماجد الأنوار كل مصلى واحد ما قام إلا وجود ويقام قام الوجود ويقاتل المشاهد وقدم لي ذر يا مقدم وعافيني من الضر فضلا يا مؤخر الله وجعلنا الخيرات أولا أولا ويا آخر قم أموت محل الله ويا الظاهر أفصل بمعرفتك التي باطنة قريبة قريبة يا باطنا ولا ويا والي أولي أمرنا كلنا فيا متعالي أرزق واسجد له الإله ويا بر يا رب البر الله بر أتايا ويا توب تب وتب منتقم الظالم نفل تصفف عفوف رؤوف بالعباد ومصلح لمن قد يا مالك الملك محسن قلبنا هذا الجلال جلال فجودك الكرم يا مقصد ثبت على الجان ابن الكمال إذا لقني أنت فاصحب لبركة من فقير يا مانع من يقدم بفتح نصيب يا ناصر ونور أنت النور في كل ما بدويا على كل نور في قلبي نور بدو برايا أرجو من صيدك فيه ألم يبقى إلى أنت باق له الولا ويا وارث جميل إنك وارث ورصدا عن الياسر شابر وشكل فيضع بما تنفذ بأسمائك الحسنى دعوتك الطيب وبآيتك الحسنى ابتغت التوصل فاسألك اللهم ربي بفضلها وهيئ لنا منك كما لا تنصبنا قد رجع بالأكوف في نصوص ومسكت من الأخذ من الدار إن نفسي وحد ديني إلا الخير وأصلح لي ما بأقدر فرهم والدي وإخوتي ومن هذا أسمع يدعو مرتبا إلى فرم والدي وإخوتي ومن هذا يدعو مرتبا إلى فرم والدي وإخوتي ومن هذا إلى فرم والدي وإخوتي ومن هذا إن الخالد رحز الأبد من الخالد رأيت المهيد في دوهة ولا بصلي على جد هدي ما مال آل وأصحاب جمعا وإليك اللهم صل وسلم وبارك اللهم إنك تسمع كلام وترى ما سمع تعلم الذر والأهمية لا يخفى عليك شيء من أمر أنا بائس فقي المستقيم مسجد واجب المسق المحترم معظم بشأن وصلك مسألة المواك وابتهل إليك ابتهال السليم متوت وقد خائف المترم قادت لك رقبتك وفارت لك قبر رسولك اللهم نطعنا بدعائنا السقي وقل لنا رؤوفا يا غير مسلم يا خير مسلم الفاتحة subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah